émission bi nga xam ne baaxoo nañ di ko def muy émission yaru ak yare tey jii nag nekk suñu numéro ñaar fukk eh, ak benn di émission bu ama am solo comme ni ko mbokk yi waxee ak ni ko mbokk yi eh, toppee muy émission boo xam ne tam ñaar li si ëpp eh, dañu dafa ubbeeku ngir li jëm ci lépp lu jëm si wàllu daara naka lañ koy doxalee ba liggéey bi mën a jëm si kanam ndam am si te du ànd ak ay jafe-jafe waaye mboolem ñi nga xam dañu nekk say entreprise di liggéey wala si ay dawaayir yu mënti doon ñu di si weccante ñoom ak ay xalaat yoo xam ne si dana tax liggéey bi ñu man koo def si anam goo xam dana mucc ayib ba ay résultats yu bari man see juddoo te itam du am benn gàllankoor waaye njëkk ñuy dugg si waxtaan yi dañuy siyaar eh, mbokk yi xam ñoom la ñuy àndal liggéey bi saa su ne te boo ko waxee dem si compagnie Serigne Seck Sénégal di si jiital El Hadj Serigne Seck Cheikh Mouhamadul Fadil eh, Serigne Dame Touré ak mboolem ñi nga xam ñu ngi liggéey si daara ji bàyyiwuñ kenn di nuyu waax baax nag Serigne Abdou Khoudoss si la si Euh, yaatal gi ak tasaare gi di siyaar bu baax sëñ Moustapha Sarr mi nga xam moom mooy suñu technicien toujours di liggéey liggéey bu ama am solo waaye di siyaar tam sëñ Omar Sylla mi nga xam ne génn na léegi ci émission boole di émission boo xamante ne itam mën na àddina bépp dañ koy topp fii ba Europe nit ñi dañuy woote léeg-léeg sax benn waaye wala ne siyaaral ma sëñ Omar ak sëñ Maxtaar kon da lay wane nit ñi am nañ euh, yëf yi am na impact ci ci ci ñoom. ñu ngi ciy dolli ko bu baax am na benn sëñ daara boo xam nag bu ñu koy teg. day woo waa daara ñu ñëw nga xam ne kon ñi yéen a ngi jàngal ay junni junni nit loolu nag ñi am xalaat boobu dañuy xam ne kon loolu aw yiwu yaatu la waaye di siyaar tam suñu Maxtaar Kebe mu Cheikh Saliou Mbacke mi nga xam ne moom la ñuy àndal ñaar yëpp boole bi ak émission yaru di ko ñaanal borom bi tabaaraka taala gën koo sàmm gën leeral xelam yokk xam-xamam dañ koy bàyyi mu nuyoo bala ñoo dugg si waxtaan bi Cheikh Maxtaar tafadal maskura salaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp day siyaare ñëpp tàmbalee nuyoo beeg siyaar bi ci cheikh Mouhamadul Muntaqa al xalifa al aam li taifati al muridiya di ki teg njabootuk Sëriñ Tubaa gépp waaye di siyaare kilifay diine yi ci réew mi ak ëttub ba fu mu mën a nekk ña nga leen di siyaare rawatina nag waa daari alxuraan ñi nga xam ne ñoom ñoo féete woo jàng ak yare te émission bi far tudd nag seenu émission ndax yaru ak yare ab yarekat bu yare moo ko war a moom ak ñami yar di nuyu nag compagnie C3S ci seen taxawaay bu rafet ak yi ñuy jàllale jàngale léegi daa yomb te bu njëkk daa jafe woon danga daan yor ñaar fukki nit kenn ku ne ngay wax ak moom ñëpp sax duñ mën a mokkal tey nga nekk fi barab mën a wax ak waa àdduna bépp ñuy mën a mokkal loolu ak yomb la waaye am na ñu ci jàpp ba mu gën a yomb muy alaaji sëriñ Seck ak ñi àndal ci liggéey bi ñu ngi koy nuyu bu baax di nuyu sëriñ Fallou Seck di nuyu sëñ Dame Touré waaye di nuyu waa c 3 seen banqaas yi ci biir réew mi ñëpp ñu ngi leen di nuyu di leen ziar di nuyu it sëñ Moustapha Sarr suñu technicien bi nga xam ne la sëñ Fall waxoon moom da ci taxaw tem rek daal di koy yàq loolu ñu ngi ko ci sant ndax musta tardé ci moom. waaye sëriñ Mbacke maa ngi leen nuyu yow mi nga xam ne yow sama mbokkum daara di nuyu itam sëriñ Omar Silla mi nga xam ne moom lañ àndal léegi ci benn émission te war a delluwaat ak moom ci beneen bi sëñ Mahmoudan mi nga xam ne dañ dégg kàddoom léegi mu bëgg a wax ci turu C3S moom itam ñu ngi koy nuyu te di ko yóbbanteem nuyoo ci bokk yëpp seen mbokk seen xarit Mokhtar Kébem Cheikh Salif Mbacke. Euh, macha allah Cheikh Mokhtar ci waxtaan woo xam naa tey jii dañuy tànn nag thème bu am am solo. ñuy waxtaanee temps ndax ku ne xam ne temps dafa dafa fort ndax suñu borom mboolem yi ñu digal si temps la ko tënk julli aj màkka weer weeru koor te it arab yi di wax lu am solo al waqtu ka sayf in lam taqtaahu xataak temps comme jaasi da nga koy jël am loo si utiliser defar ko wala moom moom mu jëli la waaye moom personnellement moom mënu si am waaye njëkk ñuy dugg si émission ak yaru yaru ak yare pour développer thème boobu euh, xam nga ku ne xam na yaatal mbindu alxuraan dafa am ay soppaxndiku yu bare bari yu si am mhm. yoo xam dafay laaj ñi nga xam ne ñoo si fa yéene bokk mhm. war a xam ni muy doxee ak ban programme ren moom lañ am mhm. ak nan la ñu war a continuer loolu nag pour ñu am si lu leer xam naa dañuy ànd ak suñu Muhammadan Euh, mu ñëw def si ay leeral incha allah. Mm-hmm. ko defee ñu daal di wéyal suñu waxtaan incha allah wax sëriñ Mbàkke lu am solo la ndox ginnaaw yàlla yaru ak yare yaatal la ko jur bu doon bàyyi mbaa muy yaay yaatal mooy bàyyi yaru ak yare mbaa mooy yaay yaru ak yare kon suñ demee ba ci biir yaatal mbindum alxuraan nag ñu ciy bëgg a jàllale loo xam ne day aju ci euh, yaru émission bi yaru ak yare di ci jàllale loo xam ne day dem mat ci alxuraan day mel ne kon daal yaay ja daa ñëw kër doom ja Mhm. bismillah ah. kon Cheikh Mouhamadan dañ lay dalal si suñu émission yaru ak yare xam naa kon tey am nañ am nañ gan nga jàllale wax ak mbokk yi nga xam ne xam ne dañuy toujours dañuy am yitte ci émission bi di ko topp nga defaale leen ay leeral ci concours yaatal mbindu alxuraan bi nga xam ne mën nañ ko war a commencé inscription yi le 14 août mu war a jeex 14 septembre léegi yan changement si Mouhamadan moo si am yu bees yoo xam ne dafa aaja nit ki mu xam ko. waaw salaamaaleykum wa rahmatullah sëriñ euh, di ziare mbooleem ñi nga xam ne ñoo ñuy topp suñu mbokki internet yi ñuy topp ci euh, seen émission bu am am solo bii di yaru ak yare waaye itam bu am am solo bi nga xam ne sëriñ Omar Silla dana ko def mu jëm ci wàllum boole ci alquran ji euh, ñu ngi ziare mbooleem ñoom ñëpp ñu ñuy topp euh, di beral am nuyoo itam sëriñ Maxtaar Kebe moom mi nga xam ne moom nga am habitude di àndal ci émission bu am solo bi di yaru ak yare di ziare bu baax itam kilifa yi nga xam ne ñooy ñoo jiite kër gi commencé ko ci PDG bi laa ji Serigne Seck ak Baye Fallou waaye nga may ma itam moom ndokkale bu baax a baax euh, Baye Fallou moom Serigne fàllu sekk ci seen bis bu am am solo bii nga xam ne moom lañ dëgmal di bisub tari alxuraan bi nga xam ne daare bay di sekk da koy da koy waajal ah, le quatorze bi muy ajum bi nu jëm incha allah bu dellusee mhm. ñu ko ci ndokkalee ak mboolem ñi mu ci àndal ñëpp euh, kon ma delloo la kàddu gi rek euh, ba ci kanam sëñ Mbacke incha allah waaw bis boobu tam ñu ngi si woo mbokk yi jullit yëpp muy bisu daara boo xam ñu ngi koy am fële ci Taïba daara jooju nga xam ne daara sëñ Mouhamadou Badiane Seck di daara ju ama am solo boo xam chaque année tam day génne ab lim bu baree baree bari daara joo xam Alaaji Sëriñ moom moo ko taxawal euh, doomi jullit yi di fa sàkku alquran ak seen xam-xamu diine ak àddina lépp itam ci xéwal ko xam borom bi defal na ko muy coobarewu di leen ko defal lépp di bokk ci liggéey bi am daf ko def pour tasaare lislaam dañ naa tam mbooleem kuñ fa xamal ab xaraf rek wala ko si am yéene loolu lépp di yiw woo xam ne borom bi dana ko nangu def ko si misaanul xasanaat yëpp waaye itam liggéey boobu mu teg ko si loxoy Cheikh Mamadou Fadil Seck mu di ko coordonné di si doxal doxal am solo sëñ Mouhamadan euh, ren jii ku ne xam ne ne yaatu mbindu alquran am na ay soppiku yu bare bari yoo xam dafay aaje nit ki nga xam ni dafa bëgg ñëw bokk si liggéey bi euh, mu xam nan lañ si bokke bu si bokkee itam yan critère la war a am ak yan règle mooy yi nga xam ne ñoom ñoo koy tënk ba bu si bokkee moo mën a sàmmoon teg liggéey boobu ba euh, xañ na yi ñuy teg pour mën a àgg sa mujj ga bu ko yàlla dogalee mu mën saa àgg fekk moom mi ngi jaar si yoon wi nga xam moom lañ ko jaarloo soppiku yooyu nga xam ne am na ci mbind mi ren suñu moo dem boo ñu wax ay leeral yan soppiku la waaw jërëjëf sëñ Mbacke di la santaat bu baax a baax ci kàddu gi ñu delloowaat euh, ci lu gàtt rek ndax danoo ñëw si seen si seen si seen émission bëgg see jàllale suñ suñ benn communication wala information en tout cas. Hmm. kon dañuy def lu dul rek njëkkanteeg waxtu bi ngir dafa gàtt. Euh, di wax ne nag ñu ngi euh, fàttaliwaat ne dañoo reprendre ay activités yoo xam ne boo xoolee dañ koo bëral ci at mi weesu ndax concours bi dañ koo tàmmoon di gis at mu nekk mi am. mel ni at mi nu génn dañ koo dañ koo jëlaloon amuloon amul woon li waral jëlal gi mooy su ngeen ko seetloo yow am nga am nga maîtrise bu baax a baax ci li may expliqué hmm. dafa am activité yoo xam ne bi biñ organisé concours bi daa ñëwaat doollee ko ci biir concours bi da hmm. mooy xam ne gis nañ ne kilifa yi gis nañ ne loolu tamit mënta ñàkk hmm. muy tasaare mbind mi ginnaaw bi ñu defee bu njëkk ba mbind yi nga xam ne ay téere la woon gis ama bi ak tabaraka bi ñu gis ne loolu day yell ko ñu tasaare ko loolu nag ñu gis ne itam mun nga bëggee boole ak concours bi xew-xew yi dana bari te temps itam amul Euh, ñi koy ñi koy ñi siy dox yëpp ay kilifa lañ yoo xam ne dañoo nekk ci. ci liggéey bu am am solo. Mm-hmm. muy yaatal itam téereb alquran bi euh, téereb sunu borom bi subhanahu wa taala nga xam dafa mel ni sax période bi ñu toll nii dafa mel ni ñoom ñu ngi si tournée boobu sax di dem ci région yëpp voilà mi ngi noonu ba nag liggéey bu am solo mm-hmm. ñu ngi si côté sud bi mm-hmm. dem rek ñi ngi woon Kolda li ko jiitu nu ne woon nu nekkoon côté Ziguinchor barki démb bu solo ak Sédhiou xam ne ay lim bu takkoo takku lan lan lan lan reproduire ci téere yooyu mm-hmm, mm-hmm. jaayuñu ko comme ni ko euh, baaxoo di waxee macha allah euh, jaayuwuñ ko laajuñu kenn itam nga xam daanaka loolu rek jaroon na taxawal yaatal mi loolu rek liggéey la mm-hmm. moo tax euh, année bi nga xam ne moom lañ jëlaloon nii daanaka liggéey bi yëpp dañ ko concentré woon ci loolu si leen siy jaajëfal ndax yow am nga liggéey bu am am solo ci wàllum topp topp géeg yëpp boo si def Mm. kon daal euh, loolu ab leeral la boo xam ne moo waraloon jëlal gi leneen itam mooy ren danoo teel a bëgg a commencer activité yi. Mm-hmm. ndax euh, comme ni ma ko waxee rek temps amul euh, ci seen thème bi sax xam naa moom ngeen bëgg a waxtaanee. de temps dafa am dafa am solo lool lool lool ci sunu dund bi. Mm-hmm. moo tax loo ci mën a exploiter rek. jël ko loo am ci temps rek mm-hmm. exploiter ko jël ko. ba waral ren ñu bëgg see teel a dugg nag waaye nag laataa ñuy dugg si liggéeyu ren bi suñu mbàkk dafa am lu bees. loo xam ne kilifa yi nga xam ne noo jiite commission scientifique bi mhm. ñoo ko ci indi mhm. donte sax indi woon nañ ko ci at yi mhm. weesu waaye ren dañ koo bëgg a gën a yaatal ndax danoo bëgg li ñuy wax harmoniser suñu façon bindin yi nga xam ne moom la ñu mag ñi bàyyeeloon ñu harmoniser ko ak bindin mi nga xam ne mooy mooy règle internationale norme internationale yi nga xam ne foo mën a yóbbu mbind mi nga xam ne moom la ñuy def si concours bi wala mbind mi nga xam ne moom baaxoo xam Sénégal kenn du ko mën a contester loolu nag ñu amee waa scientifique daal di ñuy xelal que ne da bëggoon C3S organiser benn formation. Hmm. boo xam ne ci bëru tabaski gi leen ko na ma amal. Hmm. Euh, mu am ñaar ba ñetti euh, lu tax loolu war a am. ay jataay daal ay jataay yoo xam ne formation lay doon. loo xam day jëm ci wàllu rasmu bind. nu ñuy bindee ak nu ñuy maase. nu ñuy maase tomb alxuraan yeeg yooyu. Hmm. loolu nag ñu jàpp ko ci bëru tabaski bi euh, loolu nag njëriñ ji mooy ñu gën a mën a def xam doo wax formation parce que. baat formation ak ni àdduna bi di évoluer fi ñu ak euh, ak yooyu danoo am tendance di wax sax renforcement de capacité wala renforcement de niveau parce que formation daanaka. bu njëkkoon maam laa biirante rek. waa kay mi ngi noonu. ndax maanaam fi mu ne nii ki bind alxuraan ba mokkal ko ba bex yi. Mhm. kooku boo ne dafa lay former mën naa am ngeen mën naa am ngeen lu ngeen séq. waaw waaye fi ne nii. Mhm. li nga wax dafa am solo tey loolu dafa aaje nit ñi xam ko xaw mag ñi bi ñuy bind ay kaamil. Mhm. dañ daa sukkandiku ay boroomi xam-xam. léegi nag ginnaaw bi nga xam nit ñu ngi bind xañ na man nañ leen a bañ a xamal école yooyu waaye fu ne bari na lu ñuy def loo xam da nga am école boo koy delloo waaye problème bi mooy yow mi nekk si liggéey bi di gëstu man ngaa gis ni waa ji léeg mu def loo xam ni comme benn xaraf ni rek comme laam alif mën ngaa gis ko xam day jël masque gi teg ko si kaw laam gi léeg-léeg mu ñëw teg ko si digg bi xam nga kooku maanaam fokk benn moo si war a am waaye nag tey bu fekk respecté woon loolu am na école yoo xam koy jàngal ne la masque fii la a tege warul tege fii nga xam loolu ak ay ay leeral la pour que kii liggéey xam ni euh, mag ñi nekk ñoon di làmbatu parce que ni ñu jàngee ni ñuy jàngee rasmu ak dabtu ñoom noonu lañ ko doon jàngee waaye nag léegi ginnaaw bi ñi nga xam jaaraat nañ ci daara di bex yi xaj na jaaruñoo ñoom ci diggante rasmu naa ne nii la ñuy bind wala nii la ñuy maase dañ ne a wan rek ñuy def ñooñu nag ñoo aaje ñu ne leen nag mag ñi kat mag ñi doon bind kat école sàngam lañ bind lañ lañ sukkandikoon kon yow mii di bind te bëgg a gañe il faut kon da ngay sukkandiku si école sàngam loolu dàqonte wut ak ni yow li ngay def xamoo ko. mais il faut nga am wenn yoon wooy jaar. dëgg la moo tax ma tuddee ko sax man renforcement de capacité wala de niveau. xam ne nit ki na lu mu amee woon ab bagage bu mu amee woon. Mhm. ko rek complété ci ci ci mhm. comme ni nga waxee nag euh, moom wax nga ko sànq. te loolu jubluwaay bi itam da bokk mooy ki ciy bokk nga xam ne bokk na ci formation bi te amagul âge yi nga xam ne mooy âge limite bi koy teree mu bokk ci concours bi. Mhm. dana am kon sens su gën a xam lan mooy dëgg-dëgg li koy xaar ci concours donc dana dana augmenter ay sens am pour mu mën a nekk ci ñi nga xam ne ëllëg ñooy gagné ñooy gagné. nga xam daa kon teewee lu am am solo am solo la ci parce que ñi parce que ñi ñi ñiy mm-hmm. corriger mm-hmm. lañ fa jàngale foofu la ñuy sukkandiku dëgg la mi ngi noonu kon mm-hmm. bi bu teewee formation yi mën na faa jële loo xam ne xañ na dana yokk ay sansam ba mu mën a génn ci ñi nga xam ne ñooy ñooy gagné ci édition bi ñu jëm mais fàttali leen ne suñu sixième édition ren tamit ñu bëgg a toujours question de temps rek ñu bëgg a gën a teel a def dépôt candidature yi bu soobee yàlla mais dafa mel ni formation bi waxaguñ ban date la. waaw nee naa nag si biir bërëb tabaski gi lay doon. kilifa yi waxaguñ waxaguñ exactement ban jour la waaye am na ay numéro yoo xam ne moo ngi jàll noonu pour ñi nga xam ne danoo am yéene bokk ci formation bi. Hmm. ku ci wootee ñi nga xam ne ñoo ko yoree ma leen di nuyu sëñ Abdou Seck ak sëriñ Abdoul Khoudous si la hmm. danañ la enregistré. bu kilifa yi jàppee date exacte bi ni bi nga xam ne moom la ñuy def formation bi ñoom danañ la revenir si yow wax la ne. Hmm. bërëb sàngam lañ koy defee. ci Touba incha allah waaye itam dat tel ba dat tel lay kii hmm. lay lay amee kon loolu mooy jëm si formation bi dépôt candidature itam comme ni nga ko waxee bu ñu si jógee teel koo def rek ndax danoo bëgg bu nu tolloo si safar gi nu commencé waat defaat beneen BA bi mooy bànn annonce bi jëm ci dépôt candidature yi nga xam ne dañ koy commencé le 16 août mu war a jeex le le 16 septembre incha allah bu ko defee ñu teel a def collecte yi teel a def itam déploiement bi. jàll si yeneen phase yi 2024 allah parce que euh, suñu exercice yi ni muy duggantee mooy tax ci bi la activité di commencé hmm. mais boo xoolee li nga xam ne mooy cérémonie bi day dugg ci bi parce que ci jamonoy koor lay doon. kon daal de façon très ramassée ak lu lu koo gàttal. Hmm. loolu mooy activité yi nga xam ne moom la moom la ñu fas yéene ànd ak. Euh, sunu mbokk yi waa daara surtout hmm. dafay mu jëm ci concours bu am solo ba bu C3S di organisé tudde ko yaatal mi ne alxuraan sëñ Mbacké macha allah sama wala macha allah ci leeral am solo yooyu su ko defee mbokk yi ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañ see bokk wala ñu bëgg see lu gën a leer numéro yoo xam ñu ngi affiché wu ci kii bi ñu di si woote su ko defee luñ ci soxla si information danañ ko danañ ko danañ ko am mu nekk nag liggéey bu am solo boo xam ñu ngi si woo ñëpp ko képp ko xam ne daal am nga yitte si bokk si concours bi wala tam bind xam-xamu bind wala maas yitteel la nga fexe ba fekkee formation yooyu parce que dañuy wax ni jàngale bind ak maas ka xam nga moom fardu kifaaya la dafa mel ni warul jullit yëpp waaye kuréel bu engagé ba war ko def itam ah, mat nañoo taxaw nag mat nañoo ñaanal kon ñu ngi ñaan ñu àgg si ak jàmm tàmbale ko si laarmant waaye mottali ko si alhamdulillahi rabbil alamin kon Cheikh Mamadou eh, ñu ngi lay siyaar bu di la jaajëfal ci eh, kàddu yu am solo yu leer yi borom bi doon laa defal tawfiq bu baax jërëjëf sëñ Mbacke jërëjëf kon xam dañuy dalal rek sëñ Maxtaar ñu wéyal suñu waxtaan ci émission bu am solo bi nga xam ne moom lañ tànn tey euh, mu jëm ci euh, temps muy émission nag bu ama am solo mbokk yi boo xam ne euh, aajana aajana aajana bàyyi xel ndax niñ koy waxee woon ci mu xaddima bi rek suñu borom julli moo gën a màgg ci jaamu yàlla yi tey gis nga ne inna solata kanat alal muminin kitaaban mawquuta weeru koor suñu borom daf ko tënk ci temps aj màkk borom bi daf ko tënk ci ci temps kon day jàpp ni temps muy waxtu xéwal gi gën a màgg ci borom bi di xéwale eh, ab jàmm si la bokk est-ce que nag ñun dañ koy fowee mu jàll wala est-ce que dañuy fexe ba la sëñ bi waxoon muxtaar daymaan yi aleyka yaa muxtaar bijtihaad yi fi kulli saatin ala rachad est-ce que ñun dañuy fexe ba temps bu ne ñu fexe ba tënk suñu bopp si lu ñuy amal njariñ wala est-ce que dañuy bàyyi temps bi di daw ci ci ci ci sunu kaw tey min xusni islaamin mar'i tarku ma la yaanihi bokk na ci nit ki liy tax lislaamam rafet liy tax lislaamam taaru lépp lum mu sentir ni lii mi ngi ci dugg waaye amalu ko njariñ ci àddina amalu ko njariñ ci àlaxira mu ne ko fa ñukk ni yàq bu naqari te di jéem a dëgg ma nag loo xam dana ko amal njariñ kon suñ maxtaar boo ñu doon laabire ci wàllu temps muy waxtu lan nga ñuy si wax jërëjëf sëriñ Mbacke jërëjëf mbokk yi nga xam ne ñu ngi ñuy topp ci biir réew mi ak bitim réew ñu ñëwaat ci seen émission yaru ak yare tomb bi di temps sëriñ Tuuba radiyallahu anhu daf cee wax lu am solo faalam bi anna waqta shaxsin min aaz ashyaaihi fa ashxilanhu bil aaz allahu akbar ah. loolu waxaat ko doo ko firi waxaat ko doo ko firi mu ne faalam mhm. bi anna waqta shaxsin mhm. min aaz ashyaihi fa ashxilanhu bil aaz allahu akbar ku am aziz da nga koy delloowaat ci aziz ku am lu të bay doodu xam ko ci taxawoon sax ndax loolu mat na émission allahu akbar ah, fa ashxilanhu bil aaz fa ashxilanhu bil aaz la ilaha illa satru bu njëkk bi daf laa wax li nga am hmm. mooy xab bu njëkk bi. xab bu ñaareel moom mu wax la fi nga ko war a def. li def temps li nga am. ak li nga war a def. li nga war a def. ci li nga am. Hmm. faalam ba tam ilmu bu jiitoo ci waxi arab. nga xam dafa laay yee faalam. jàngale la. Hmm. faalam muallim ma koy wax mutaallim. waaw mu ne xamal ne hmm. waxtu nit ki. même porte kii nit sax sin rek la waaw. n'importe nee na ku mën a doon nanga xam ne sa waxtu wi mi nga bokk ci ngën jërëy yi li nga am ngën jaa jafe li nga am ngën jaa tedd li nga am nga ne ko ah waaw suñu lool maam li nga am li nga am nag la wax maam dara gënu see tedd dara gënu see rëy waxtu waaw ndax dundug doomu aadama sax moom ci temps la sëñ Mbàkke danañ ñëw ah. incha allah mu ginnaaw nag am nga loo xam ne yow loolaay sa lépp mm-hmm. mooy sag am di sa bénéfice di sa texe kon nag fa ashghilanhu bil aas rek maam lu gànjare loolu nga am daal bu ko yàq jël ko dépensé ko ci la gën a tedd ndax li nga am moo gën a tedd bay woo képp buñ ko doon tey fii ba ngoon doy na waa léegi yow foofu xanaa kon moo tax ma gis benn bindkat bu ñu Fudaylu ibnu ibnu Iyaad mu wax ne xaamilul Quraan mhm. ku man alxuraan xam nga am nga ko mhm. nee laa an yalhuwa maa man yalhu mhm. wala yasu maa man yasu taaziman li xaqil Quraan nee na ki man alxuraan jaadootut bu nit ñi da nekkee ci ay faux débat muy muy caaxaan muy ànd ak ñoom di waxtaane ay làmb parce que dafa am li gën a tedd fa asqilahu bil ans te loolu moom la sëñ bi wax ne maam wallaytu an lahwin wa lahwin mudbira lillahi bil qurani ni amal munsilu nee na bàyyi naa fa mu ndaw bàyyi naa fa mu mag bàyyi naa lépp luy caaxaan ñu ne ko ci lan nga nag mu ne jàpp alxuraan di ko jàng di ko setantal di ko liggéeyal parce que kon am na li gën a tedd def ko ci li loolu bayit wu ama am solo nga wax ne. am solo macha allah sëñ Mar. anna waqta shaxsin min hmm. aaz ashyaihi nag. ashiya lu dul yàlla rek. li nga am maam loo am rek lu dul yàlla rek nee na la ashiya. muy sëy. Hmm. ak lu mu mënti doon rek. nee na mu li nga am rek ci àdduna bu dee pala bu dee darajaa bu dee askana bu dee xam-xama bu dee alal la bu ko yàq bu ko yàq fa ashxilan hu bil aans ndax lu tedd dañ koy delloo ci lu tedd ki yées ci nit ñi mooy ku jël lu tedd delloo ko ci lu tedd di allahu akbar xam moo tax benn bindkat nii mhm. al waqtu agla min al yaquuti wa zahab wa nahnu nuxsiruhu fi lahwi wa laa'ibi nee waxtu moo gën foor wurus yaquut moo gën a foor mhm. mhm. or nee na ñun nag ñu di ko passé si yu ay détails yu amul solo. allahu léegi nag borom xam dañ ne. Mm-hmm. Mm-hmm. seconde yi. seconde bi. Mm-hmm. cerce bi dafay romb rombeen wu gaaw. waxuñu waxtu wi. ndax waxtu wi day mel ne mooy 60 minutes yi. waaw cerce bi rek. cerce bi waaw. dafa gaaw nee na lool. te cerce bi dalaa jiitu nga topp ci ginnaawam. mooy cerce mooy lii kii noonu lii lii avancé ci montre bi sew te gaaw lool. xam ne boo ne nangami cerce la. moom la ñuy dàqeel nee na te daa gaaw kuy dàqee kers nag kuy dàqee kers waroo toog ba noppi nag bëgg a toog ne nàng moo tax benn waay ju baax benn waay daf ko ne dama bëgg a waxtaan ak yow ñu toog waxtaan mu ne ko da nga may téyel jant bi ba du dem ndax man moom laa jiit leel boo fexee ba jant bi taxaw nag ma wax ak yow waaye bu fekkee mënu fexe ba jant bi taxaw bu ma bàyyi bàyyi maa jant bi rek xanaa moom moom la amee sawqil wax ne maam daqaatu qalbil mari qaailatun lahu qaailatun lahu innal xayaata daqaaiqun wa thawani wa léegi nag li nga waxoon léegi ne al waxtu kas sayf waaw in lam taqtau xataaka xam nga loolu mooy lan mu ne waxtu comme jaasi fokk waxtu yi des koy dépensé waaw ah, comme jaasi la daal waaw il faut rek ñu dépensé ko rek mhm, mhm. boo ko dépensé ci ci nga gagné mhm. yaa ko dog soo ko fooyee mu dog la ndax moom il faut mu jàll il foo mu dem waxtu lu muy niroo sëñ sëñ maam crédit bu ñu def ci téléphone. ci téléphone ba noppi nag nga woote ba noppi teg fee sa téléphone nag moom xa wax teewul mi ngi marqué. Hmm. sa noppi teewul mi ngi marqué. maam daal maam daal est-ce que yaay xool ba xam est-ce que di nga ko ngi dem. Hmm. crédit bi mi ngi dem ci appel wax ca lu am njëriñ mbaa ñàkk essence bi mi ngi daw ci oto bi dawa ci lu am njëriñ mbaa nga ñàkk. moom daal bi nga mi ngi daw ci biir yaram wi di dama këddik def ci lu am njëriñ mbaa nga ñàkk. maam bi nga juddoo rek. exact la déclenché daal. kon benn ngoog. Hmm. moo tax benn borom xam-xam ne nit ñi dañ maa jaaxal. Hmm. kon daa ku jaaxle mooy koo xam ne xamatul lu muy def. mu ne ah mu a ñoom dañuy foo te dogal bi foo foo la wut. dañuy foo te dogal bi nga xam ne mi ngi ñëw. foo wut foo wut foo la wut. ba pare ñoom ñuy foo ba noppi ñuy foo ñuy ñuy fàtte te ki yore mbind mi. fo fo fokkul fàttewul. moo mooy borom bi tabaaraka wa taala. raqiba atiid baris. kay moo tax benn wax kan ma lam yansahu almalakaani xiina nasitahu. wallaahi bal athbatahu wa anta laahin talabu. mooy li wax léegi si olof. macha allah mooy olof mhm. moo tax borom xam-xam yi dañ na it ki am daraja am dignité. Mhm. mooy kuy contrôler boppam. Mhm. ki ñàkk daraja ñàkk dignité mooy kuy contrôler leneen. moo xam ab téléphone ngay contrôler. moo xam loo mën a contrôler yow. jaay nga sa temps jox ko ku ñàkk bopp koo dendal te du yow. Hmm. moo tax benn borom xam-xam ne ki yées ci àdduna mooy ku jël àddunaam maa ngi jëndee ko àdduna ñu ne ko déedéet dégg lu baax sañ Mbàkke ki yées ci nit ñi ñu mooy ndax ku jaay àllaaxiram jëndee ko àdduna. Hmm. ah moo ci yées de. mooy yées waaw. ki koy yées nag mooy ku jëlaat àllaaxiram jaaye ko nag àddunay keneen <laughs> ki jël àllaaxiram jaay ko àddunay leneen. Hmm. kookaa ko yées. allahu akbar kon yaa ngi woon ci. waxtu sëriñ tubaa radiallahu anhu nee na wa kathrat alfaraxi walraxaati daabi bi dicri ma amaama yaati min maradi almawti wa sakratin lahu walqabri walxashri wa raaqib hawlahu allahu akbar nee na bu la dara bëggee yàqal bëgg laa fàbbi ba xamatoo yoway kan delloosil sa bopp ci fàttaliku li lay xaar li lay xaar te fi lay xaar danga ko fi fekk moom du la fekk si li gën a métti mooy li lay xaar mi ngi taxaw fi ne nga waaxu wuti ko te amul tuuñam tuuñam lu mooy doo jàdd gauche doo jàdd droite doo arrière hmm. feebaru dee sukkaraatus ndee bàmmeel pang ak la ca ne ko koy xalaat danga jël sa waxtu wi nga rokkos ko bu feesee nga gën koo rokkos waaye doo ko bàyyi muy vide xanaa moom la sëñ naan saam naanu ku dul xalaat de loola neex defal la hmm. dëgg la moo tax nag borom xam-xam yi dañ ne sànq waxtu moo gën a metti dee. effectivement waaw. ñu ne ndax lan ñu ne waxtu boo ko sankee day dox sa digganteeg yàlla ak sa àllaaxira. Hmm. dee nag boo ko defee nit ñi doog nga fiy bàyyi dem. jeex waaw. waxtu lu garaaw la sëñ sëñ hmm. kon waxtu am na solo lool macha allah sëñ Maxtaar. su boobaa nag. moo tax Sëriñ Tuubaa radiyallaahu anhu waalam hmm. bi anna sayra. lil mar'i sarii' faraaqibanna hawla mawtin yaa mutii' luy daw te tag luy daw te gaaw moom. maanaam diggante fi muy juddoo ak fi faatoo. almaru sari dox mm. bu gaaw la. dox bu gaaw la. te nag dox boobu dox sax bu gaawoon ba noppi jëm ci lu baax. Mm-hmm. waaye ahwaale mawtin daa ne ci kanam kenn xamul. Allah kenn xamul nu muy demee. moo tax mu dugal foofu amal ritaala. lam tadri hal anta ma al awtaari. Mm-hmm. ala safa xufri halakin heeri. Mm-hmm. xamoo ba xam yow sax bi ngay di connecté woog di caaxaan ak dem ca làmb jaag dem ca kabari baag. fanaan ca boîte de nuit. fan la fan la sax foofa da am arrêt cardiaque. mbaa nga fan la dogal bi ñëwee. waaw arrêt mën na la fa dal. Mhm. cardiaque bés bu ñu dal nit mën na ko fekk ci jéego. waaw fi nga koy xamee rek dañuy wax bindikay dañuy wax ni léeg-léeg nit taal otom wax soxnaam ni ko toggal añ te añ ba du si añ. léeg-léeg mu génn sol karabaatam sol mbubam te loolu bu koy bu ñu koy tekkee hôpital lañ koy tekkee. kon nit ki xamul diggante bu gaaw boobu bu ko yàq. léegi nag bu ko yàqul nu muy def sëñ Ba wax na ko kooku moom xam naa bu ñu jeexale bi moom la ñuy jël suñu deuxième numéro nga xam ne temps bi lan lañ koy dundalee kon suñu Maxtaar dafa mel ni kii jamono ji doy na waar dangay gis ni léegi nit ñi comme lu mel ni portable yi ay TikTok Facebook WhatsApp dégg nga YouTube am na ñoo xam seen temps bépp lay la naxaar si lañ koy def xataa ba ak kër boo fa duggee sax lay communication ama tut téléphone bi njaboot gu ndaw gi ñoo ko gën a bëgg sax mag ñi foofu yan laa biire lañ war a mën a def nit ñi pour que ñu xam ni lépp lu jëm ci wàllu googu ñun ñoo ko war a yilif waaye nag waruñoo yilif. benn boroom xam-xam daf ne morom ji. sun jumtuwaay yi ñoo leen moom. nañ fexe ba sun jun jumtuwaan yi waaye bun moom. noo moom suñuy jumtuwaay nañ fexe ba suñuy jumtuwaay bañ noo moom. diggante li nga moom ak li la moom du benn. Mm-hmm. téléphone bi yaa ko moom def ci farata ak sunna effectivement yaa moom télé bi mm-hmm. def ci farata ak sunna mm-hmm. wata bi yaa ko moom dox ci farata ak sunna sa temps bi kon ci lay mën a dunde waaye bu fekkee da ngaa dem nag ba mujj nag yow portable bi nga jëndee deux cent mille mu dem ba moom la moom moomin woo xam ne ndey ak baay ki maam ak sëriñ sax ah, moomeetuñ la noonu kon loolu mooy kon portable ba mujj na nga da nga koo jënd mu jënd la sëñ Mbàkke da nga jënd portable portable bi jënd yow sëñ Maxtaar suñu waxtaanu temps bi du yem ci benn numéro gis nga comme ni numéro 21 la dañuy prolonger numéro 22. parce que temps doomu doomu aadama dundam lépp temps la. kon loolu il faut que moom ñu jëm see taxaw. pour laabirante si ak nit ñi. tey lu mu gàtt gàtt amaana kenn ku si gindi ko ñu ngi lay seen siyaare bu baax di siyaare si si le bois. keroog daje nañ ah, ci ci ci ci waxtaan. laaj na la miraaran euh, te xam nga sëñ Fallou moo ñu lëkkale ak ah, moom ci ci ci ci ci di ko gaaral liggéey bi. Mm-hmm. mu teg ko fu kawe kawe kawe moo tax man liggéey la boo xam ne nu ñu ko gën a renforcer rek euh, ñu def ko ndax mm-hmm. ay kilifa ñoo xam mat nañ ñu ay waajur mat nañ ñu ay sëriñ di ay mm-hmm. soppe ak ay àndandoo mm-hmm. ñu ngi koy bëggee loolu lépp nag mi ngi am ci ndimbalul C3S compagnie Serigne Seck kon xam naa si maxtaa dama lay bàyyi nga wàcc sa kàddu rek incha allahu rabbi suñu numéro 22 ñu avancé waat ci temps importance gum am importance ak itam lan lañ ko war a chargé ba buy dem mën a am njariñ xam naa loolu dañ ci dikk suñu bañ numéro incha allah kon dañ lay bàyyi nga tàggatoo. sëñ Mbacke li nga waxoon léegi ci jumtuwaayal yi ñu yor. Hmm. sëñ Touba dafa am ko ko andil bandu buy jàng alquran. Hmm. sëñ bi ne ko bu saytaane dikkee bëgg laa yàqal ci fii lay jaare ndax day fekk lu baax mu ne la lii baax na nga tàmbali koo tàmbalee déglu. bu ëllëgee ki si biir na yow mi ko waroon a jàng dootoo ko jàngit waaye da ngay dem di ko déglu ci <laughs> wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatu euh, macha allah kon mbokk ñu ngi leen di siyaar bu baax xam naa foofu la ñuy wàccee suñu kàddu di ñaan borom bi tabaaraka taala gën ñoo defal bu baax ak dégg ak topp di la jaajëfal baax nag suñu maxtaar ci euh, développement yu am solo yi nga xam ni euh, def nga ko ci ci ci ci temps ndax xamoo benn kat dafa wax ni comme ni ñu waxoon léegi rek nee na naluhu wa nee na ñu ngi fo rek mm-hmm. waaye wal ayyaamu mudbira bis yaa ngi wan ginnaaw tajri siraan tajiddu sayra fil harab oh. te ne ni muy dawe vitesse la hmm. maanaam marra saxaab tamuru marra saxaab ni ni ni vitesse ni aw niir di demee noonu lay dawe na ñun xamuñu si lu dara hmm. nee na wal fawtu muqtaribun wal mawtu murtaqibun wal xaalu munqalibun waaye wan naasu fi laay bi nee na mbir maa ngi passé rek ñuy pet suñu temps hmm. dee mi ngi xaat suñu kanam mbir yaa ngi changé rek ñu si teg suñu bët. Mhm. waaye teewul nit ñi moom ñu ngi sëgg rek ci fo yi mhm. te amuñ fu muy yem. Mhm. kon mbokk yi ñu bàyyee xel li si Ahmadul Xadim wax. li gën a tedd ci nit ki li muy am mooy temps. fexe ba lu sa lu tedd loolu na nga def ko si li gën a am njëriñ. asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatu. bismillahi فاستمسك بالذي اوحي اليك انك على صراط مستقيم وانه لذكر لك ولقومك وسوف تسالون